dëkk bi sunu dëkk la sunu dëkku cosaan la ndax man mi euh, man mi wax si si man euh, fii sama maam Ousmane ba ngi wax ne ma ci ëtt bi euh, maay gone gi fa njëkkëraam donc Kébémer laa juddu waaye suma waajur fii la bàyyeekoo jugóor donc c'est loolu moo boole jingee te ma ma mu nekk mbégte lool ma ak tiitir ci man ndax dëkk la boo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàll wu ne waaye def naa ni jingee suñ koy wax diinee tax te fii nekk na mandarga googu ma ngi fi loolu bu amee nag dañuy jóg ñëw ànd ak suñuy jarbaade fi nekk suñuy jigéen suñuy euh, am di jàmm ñëw jéem a fexe na lay euh, jàpp ci dëkk bi mën a am coppite loolu moo leen fi tax a dikk te at bu jot nag doon koy organiser yenn saa yi nu organiser ko mu nekk ci wàllu ay tàggat yaram yenn saa yi mu nekk ci wàllu ay conférence mais tey ji damaa ñëwoon waxtaan mu def euh, di leen def football noom ci ngoon gi mais bëccëg gi damaa sawaroon ñëw toog waxtaan ak euh, askan bi ci nan la ñuy fexe ba ñun ñëpp ñu jàpp ci dëkk bi mën a nekk euh, loo xam ne day am changement ci loolu lañ dugg nii nekk ci te xam nga nii. fii euh, nekk na place boo xam ni euh, suuf manqué wu fi euh, gaa am nañu piste boo xam ni boo jógee ci tali bi ñëw jingee matul deux kilomètres lu baax loo xam ni vraiment wuute na yeneen dëkk yi courant am na fi ndox am na fi waaye ndox mën a soxla mooy ndox bi tax nit di mën a liggéey ndax duñ wekk mbay mi rek ci bu tawee bu noor jotee fukki weer nga toog amul looy def jigéen yi am nañ seen euh, pastef am nañ seen groupement seen GIE xale yi xam nañ luy mbay donc laaj na nañu am ndox moo xam ni ndox mu doy ndox mu doy moo xam ni dina mën a tax tey jii euh, suuf si nekk ci dëkk bi nga suuf su am njëriñ la nu mën kaa jël ci bay noor ñaareel ba mooy euh, wàllu courant nee naa problème courant ndax centrale bon courant baa ngi ni biir biir dëkk bi mais tamit dina baax nu am jumtukaay yoo xam ne dinañ gën a mën a tax nu mën a liggéey booy xool nii amoon na projet bi fi amoon euh, waa ICS defoon ko fi mooy euh, en 1998 mooy Palpix àndoon ak PNUD ak euh, OIT moo taxoon plateforme plateforme bi mais soo xoolee yëpp taxaw na te donc mooy wan ni fii war nañ leen mën a gestu moo tax ñun ñu nga xam ne ñoo ngi soqeekoo ci sunu wàllu waajur fii ci dëkk bi nu ñëw fi jëm cee jàpp te yaakaar ni yokkute na fi am. lan ngeen jox population yi tey pour jàppale leen. waaw population yi dañoo waxoon seen i soxla soxla bi ci jiitu woon moo doon euh, jigéen ñi dañ ne woon dañoo bëgg a def projet ndax jigéen ñi ay jàmbaar lañu boo xoolee daan fi liggéey liggéey bu am solo mais gàllankoor am ci diggante bi euh, góor ñi tamit euh, ñu bëri ñoo yëngatu mais amoon ay micro projet ndaw ndawaan yoo xam ne dañu ci bëgg a jàpp. ban na ko waxee nu jéem a xool ut suñuy xam-xam ak suñuy dajee ak suñuy partenaires yëpp ba fexe indi leen fi financement boo xam ne toll na ci juróomi million juróomi millions yi euh, seddale ko ci diggante góor ñi jigéen ñi jigéen ñi am ñaari million góor ñi am ñaari millions ci projet yi ñu wax beneen million ba ca des jéem kaa jëmale ci li nga xam ni mooy sunu cosaan moom la ñu xamee mooy diine mooy jàkka ji jàkka ji euh, def ko ci pour euh, dolli ci liggéey bi nga xam ne moom la def pour yeggale ko du ñàkk nag dinañ doxaat yeneen jéego yoo xam ni dina tax jàkka ji mën a jumaa ji mën a àgg ca nan ko bëggee te nam gën a rafete euh, dëkk la dëkku diine dëkku diine mooy alxuraan alxuraan mooy daara looloon xam ne dëkk bi am na benn euh, ay école coranique gi fi nekk mooy daara mais danga kaa ba def du daara tuddewuñu ko daara moderne mais tamit tamit jamono dox na soppeeku na béréb bi naan toog ngay toog ci suuf di jàng loolu xewi na di lal ci suuf di jàng it xewi na ndax gone yi xam ne bu fekkee dañ leen di utal école yoo xam ne école yu baax la ñuy toog ci taabal am maître nam gën a rekkee nam gën a rafete nu tooge ko alxuraan gi nga xam ne yàlla moo ko wàccee mu nekk téere bi nga xam moo gën a màgg ci téere yi te ci lañuy defaru fii ci àdduna defaru ci àllaaxira xam nga ne bërëb ban koy jànge war naa nekk bërëb boo xam ni bërëb bu bu rafet xale yi xam ni nekk ci daara éducation nekk ci tumuranke daara war naa mën a nekk euh, bërëb boo xam ne duñ ko comparé classe ba naan classe ba moo gën a rafet daara ji donc ci loolu moo tax ñu ni dinañ fexe ba classe bi nekk classe boo xam ni classe su arabe bu jekk. bu rafet comme école école yi. Mm-hmm. ba gone yi jingee nekk gone yoo xam ni dinañ jàng école na mu waree jàng arabe na mu waree te ñaari bërëb yëpp buñ ci génn jëm ci beneen ba du benn changement mm-hmm. looloo tax nuy donc loolu bokk na ci projet yi ñuy pour di leen sant di leen gërëm. di jiite jiit nuyoo bi tamit suñu chef di village ak suñu imam bu loolu jàllee ñu ciy teg suñu yaay yi nga xam si ni ñoo nekk si dëkk bi ak suñu papa yi nga xam ni ñoo nekk si dëkk bi. tey jii kii ñu dikkoon na ngir jàppale ñu ci ay wàllu projet développement ñu gën a gën a nekk seen jafe-jafe bi bari na parce que dëkk bi li nga xam si ni moom la ASC e bi bon Niger ci li nga xam si ni mooy jàppale dëkk bi. daaw li ñu amoon ci coupe yi ñu gagné woon dañ ko diviser par deux benn li ñu dem ci ASC bi comme manqué woon nañu kalaas xale yi ci mbaar lañ doon jànge ASC bi jël seen initiative bon xaaj ko tabax commencé ci tabax kalaas yàlla dogal na aussi bi ko Taïba Ndiaye gisee gis bon ñu ñëw maar ñu ñaari classe beneen bi ci des bon amuñu case de santé amu fi bon te loolu suñu priorité la bon jeunes yi ñu ci bëri liggéeyuñu loolu tamit bon ñu ngi koy bon bëgg kuñ ci jàppale pour xale yi nekk si dëkk bi yëpp mën a am ñu yëngu maanaam ku leen defar formation moo xam ci bu mën ci doon ndax bay mu ngi fi bon ak leneen mu gi fi càmm mu ngi fi bon xale yi am nañu jàng ñu jàng mën nañ leen defal formation bon menuisier yi wala tôlerie yi wala soudeur wala yooyu yëpp yu koo xam ne métier boo choisir rek ñu ñaan yàlla ku ñu ci defal formation. tey jii bu ngeen amee ndox maanaam est que di ngeen mën a yëngu ci wàllu mbay mi. waaw bien moo manqué ndox mi. waaw ndox manqué na pare parce que fi mu nekk ni ñu bëri fi mu nekk ni bu ñuy root gis nga bidon yaa ngi ni si dëkk bi xool nga mhm. ah, kon lii firnde la mhm. ah mhm. kon maanaam dox am na jafe-jafe manqué manqué na yàlla dogal na nag bërki démb président Alelo am na commencé woon nañu dogal ñaari fontaine bon pour jéem a améliorer ndox mi pour nu mu gën a baaxee daal mais ba tey des na quoi parce que tamit tey jii ku bëgg a liggéey mënoo da def rapidement pour dem liggéey parce que yaa ngi xalaat boo demee doo am ndox te loolu jafe-jafe la beneen bi ci deset gis ngeen dëkk bi ñu mu mel dëkku daara la Ousmane wax na leen ko bon bëgg nañ kuñ ci dimbali ci daara ji tamit ñu gën ko moderniser ba xale yi duñu dem di jéggaane di sonal kenn ndax ñu leen jàngal ñu ngi fi bu dee ci arab la daara ji bëgg nañ ñu moderniser ko ba arab bi ñi leen di jàngal duñu génn si dëkk bi ndax parce que ñi nekk si dëkk bi mën nañ leen a jàngal ak fànn bu mënti doon ci arab mën nañ leen ko jàngal kon jarul ñuy dem di jéggaane feneen te loolu mooy suñu objectif ñun ñi nga xam se ne mooy jeune dëkk bi ñun ñu xaar ci suñu tànk Dubaï ba loolu lépp am si biir dëkk bi waaw commencé nañ ci école français bi mais dañ ci doon commencé pour dañ doon gor ay bant dem di mbaaral xale yi te mbaar àll bi jaan mën na dox dugg ci biir mbaar mi xam nga xale yi mun ay xale kese ñoo fay nekk mun ni incident loolu moo taxoon ñu jël li ñu amoon tabax ci classe bi pour prochaine kii bu ñu amaatee leneen loo xamante ni dikkaat na ñu mën ci améliorer defaat classe su arabe bi loolu moo nekkoon suñu jafe-jafe beneen bi ci des tamit suñu yéene ci dëkk bi mooy euh, li mu manqué